waa salaamaaleykum ñu ngi leen di ñëpp di leen ziara tey nag ñu ñëw fii si Géejawaay ñëw seeti champion mu war a bëre vingt cinq décembre ci journée Baba Diaw production mu nekk journée boobu xamante ni euh, fête la mu nekk journée boo xamante ni c'est la jeunesse tey nag euh, gannaaw ba ñu seetee ki nga xamante ni moom mooy ñàkk jariñu tey nag ñu fas yéene waxtaan a ki nga xamante ni mooy Jackson dañ koy bàyyi mu nuyoo duma ci wéet parce que suñu confrère yi ngi nii ànd ak man dama koy euh, point de presse la woote euh, ñàkk jariñu woote li nga xam te ne mooy open presse léegi nag dañuy bàyyi Jackson après dina indi ay éclaircissement ndax gis ñu fi ay mbëru géejawaay peut-être loolu am na ay raison mais dañ koy bàyyi ba wala ñu ngi lay nuyu. yàlla bu baax di julli si yéen bi di sant suma ñaari waajur di ñaan suma yaay fu mu yàlla na gën di ñaanal maire aw père Bakar Seye ak imam Amadou Ndiaye yàlla na la yàlla yërëm di xarit la ajana di ñaanal ñu si kaso bi yàlla na leen yàlla génne ah di ñaanal ñu feebar tamit yàlla na génn si jàmm te nekk jàmm di suma benn yaay maman Ouma Ouma Gueye yàlla na ko yàlla wéral wéral cër yëpp di nuyu waa Cambérène tamit di nuyu waalo waalo yëpp di nuyu ma fiyaa rungaas bi di nuyu ñëpp waaw di nuyu ñëpp Jackson point de hmm. de presse laa woote peut-être rek booy ñoo bëgg nii rek ñëw nii mais dama ne woon damay ñoom école toog noonu xam nga entraîné du def point de presse mais dama génn xam nga fekk booy si bu gaale ma ne xaaral ma daaj nii rek moo tax waxuma ko kenn ma benn mbër peut-être loolu tax gisoo benn mbër tamit xam nga ñun suñu waa équipe rek parce que ëppoon presse ma programme pour ëpp presse point de presse laa woote woon amaana nu mu demee nii sax moo tax ma defee ko si commune bi ñëw suma président Pape Fall côté Pape Amar xam nga Père Dora suñu entraîneur yëpp maa ngi nuyu ñëpp nuyu am waaw buun maa ngi nuyu ñëpp dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy le 25. nga war a bëre ki nga xamante ne moom mooy ñàkk jariñ mm. ñu gis ni mu nekk mbër boo xamante ni moom moo la jiitu ci làmb mm. bu rek ay champion yow nga jóge ci Ahmed Deme lan moo tax sa diggante moom mooy lu may wax ni rek chaque jour bokkoon suñu dernier choix amaana moom bëggoon combat bi bëri nañ ko daaw mais peut être ba xaru tabaski moo boole. waaw xaru tabaski xam moo tax ma jël avance bi waaw. mais daa yaakaar tabaski jeex tabaski jàll na nag dimanche nii di ñëw ginnaaw suba la wax jarul muy bëre yàlla na yàlla suturaal ak dimanche. Hmm. dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy droit au but ndax jëli nañ ko jël nañ la ci open press am démb gis nañ ko détermination bi mu am mu ne combat bi soo dëggalee sa bopp du yàgg moo la mën moo la ëpp doole liñ la dee euh, yaa ngi juum loolu lan nga ci wax. <laughs> ñax moom ma yaakaar yàlla ko yéene moom ñax dafa xale bu ndaw ma naan nag may dóor ma daanoo nag may def lii comprendre comme si ko weer benn booy bu ndawam quoi xam naa yàlla ko yéene xam naa ma yàlla na yàlla sutura ba dimanche rek na dëggal boobam rek bu wiiri wiiri ma fekk bu arrière ma fekk bu taxaw ma fekk fa dafa leer hmm. jërëjëf Fatma mi ngi noonu macha allah Jackson ñu ngi lay nuyu di nuyu waa géej waay yëpp Jackson nga yàgg bëri bëri nga ak amee dem mooy sa mu jël sorti mu jumul tey nga ñëwaat jël ki nga xamante ne mooy ñàkk jëriñu muy bëri bëri wax naa la ko keroog est-ce que yaa ngi bàyyi combat bi mu bëree nag lay Pythagore est-ce que yaa ngi bàyyi xel aussi tamit adversaire yi nga doon jël ak ñàkk jël est-ce que ñoo lu ñuy bàyyi si ñàkk du bëre du xeex du kàttan du dara bu ñëwee moom lu mu indi lijjantewuñu ko ñun luñ gëm ba gëm mooy ñun ay xelal nañ te suñ tubaab am lu leen tàmmal tàmmalu nañ ay bëre dix minutes ay round daf la ñun mënuñ ñëw ama arbitre su ñu dox yoon boo xeexee mu duma la te loolu la bëgg sax si combat bi non loolu moom day wax rek mais ñemee ko nga xam ñemewul jàkkaar man soo teg loolu su jàkkaaroo man ma dóor ko mu wàcc waaw sama gëm-gëm laa waxee sama pas-pas ak nekk xale bu nekk xale wax daa jëru muy bëri dama soretul ñoo ñaan yàlla yàlla na yàlla suturaal man du ma mbëru gox ma mbëru àdduna laa waaw waala waala bi jaama gën buun yëmbal bi lépp xam nga Cambérène ñëpp dubul national baa ngi nii waral ma loolu waaw ñàkk jariñu dañ koo laaj ne ko Jackson combat am du yàgg moom mu ne day cons ak yow bëre ak yow xeex ak yow même boo demee ba sonn sax daf lay yëkkati def li mu bëgg parce que daf la bëgg a weer est-ce que tey ñàkk jariñu bu conseil ak yow euh, euh, Jackson dina ci génn cons bi ndax yow say combat du yàgg. waaw mooy lu ma wax rek cons moom day fekk nga mën bëre quoi mais ñàkk bu jàppee du bëre. du taxaw daggantaay are loolu man maa yóbbu en loisir <laughs> rek noonu di man man heure ma jàppee fu ma mënta jàpp catu karaw su ma jàppee am xelul def dara te lu ma ko tànnee du du échec incha allah fu ma ko jàpp fu nekk mu tëdd su ma songee ma daan ko jëlab rëy si kàttanu yàlla. nee na da ngay na ngay yooru. waaw loolu nga koy wax da nga koy waxanteel moom nga koy wax quoi parce que xam nga man bëreewu ma loolu chaque jour man mbër mosuma njëkk dóor chaque jour maa ngi ubbi porte maa naan bëri mën na kàng kàng waaw. ci biir moom na xaar lool lool kankan bi day ñëw ñu gis sa combat yu bari doo xaar hmm. bu at bi suuflee ñàkk jëriñu taxaw fi mu taxaw nan ngay def du xaar combat sa du ma xaar incha allah hmm. at bu suuflee maa ngi am hmm. dañoo gis ci combat bi dañ cee voyagé ñëw ñu gis ni sa poids par rapport ak euh, combat yi nga doon bëre gis nañu macha ko euh, poids bii nii ba ci Lac de Guiers numéro 2 mu ne dafa am confiance ci poids bi est-ce que Jackson ba mu commencé bëre ba tey mi ngi soog a am poids boo bi nii nga ko waaw sant yàlla nag ànd ak samay am naa booy ay ñoo xam ne xam nga ñu xëy am ñu dégg te ma ko yónnee dajaleel ma ko jox ma entraîné kon nag maa sant bu baax a baax a baax ñàkk jariñu pata bi pare dama ngi nii. wala wala bi waaw bari bari. mais moom nee na dafa wàññi 25 kilos moom nee na dafa wàññi 25 kilos moom it. ñax a jar mënu amul niveau bu mën a entraîné ma wàññi 25 kilos ay ah, ah, entraîné mën ñu ko wàññi loolu noonu niveau boobu nag amuñu ko waaw. Jackson ñu gis ni sa combat yu bari da ngay bëree da jóge fa sa combat euh, ñàkk jariñ yu bëri day def à lu suwéer te nga da nga koy dóor mu daanu. ak sa ñeme ngaa samp jaagal sa digganteeg ñàkk jariñu te gis nañ ñàkk jariñu ay combat bi met day encaissé ku ko bëree est que ñeme ngaa samp jaagal sa digganteeg waaw ku ku ku yi bokkuñu nag ku xale ku mag bokkuñu loxo bi daa bay ba sonn. da war entraîné. ay moos moos ak ñoom nga. ñun daal ñuy wax moom moom mooy dimanche soreetul quoi. ñoo ñaan yàlla yàlla yàlla nañu yàlla suturaal moom mu yor ndam. di ñaan moom ndam yomb yàlla ñu yombal dimanche. di wax booy yëpp nan am confiance nan dal ñax du dërëm. toujours waaw moom dàq ko song ko daan ko incha allah. est ba tey li nga waxoon yaa parce que da ne bu dëgëlee boppam da nga ne bu dëgëlee bi du yàgg est ce que ba tey li nga waxoon ba tey yaa ngi ci parce que moom neen du bouger un centimètre te yow bu fekkee da ne mbapat yuuxu dina jug fu dama ne woon ñax bu dëgëlee boppam du yàgg ma tey dama ñax bu dëgëlee boppam bu dawee yëpp du yàgg incha fu mu nekk ba fekk ba. na préparé loolu. léegi. waaw sangukaay bi ñàkk démb da koo dëggalaat ndax dama koo laaj. non loolu wax dof la rek loolu wax dof du bis doon. mais nee na mbalaan mi mi ngi si yow sérieux. waaw loolu wax dof la laa la wax wax du bis doon. waaw xam nga ni la. waxu dof la man waxu dof koy indaale ci stade bi. non lal ko fa. ngeen ñàkk olof la wax mais déglu lu mu leen wax. nekkul sama lu may sàng moom la jël kii ga mais day wax olof di ca xam moom day wax ba xamul wax parce que bu bëree wax rek da ngay wax ba doo xam loo wax mais nee na si booy yi ngay làqatu nee na ngay làqatu yi def ay prétexte nee na mën na la bàyyi booy yi ñu ñëw biir këram fanaan fa ak moom jour combat mu livré booy ñu ñëw stade mu daan boo génn si kër daanu boo ñëwee stade daanu. non mooy li may wax rek mooy mooy li may wax rek booy yooyu nit nañ quoi man ak ñoom du tey man ak ñoom yàgg nañ yàgg nañ ma suba di bëri sama premier combat ba 14 combat ñu ngi may suba dama fay dem heure neexee ñoom dañ may ñëwal. booy ku ne mën naa kii nii la tudd kii nii la tudd kii nii ba lu ma sol ni tey foofu la jógee comprendre nga kon nag loolu du ñaaw quoi suñu na ñu ak bu jeexee ñoom ak booy dañuy nekkaat gaañan ba nii gaañan bi dagul waaw noonu la demee na ñëw rek moom 2012 woon man maa ngi nii yàgguma xale laa boobu léegi demul dikkul na ma may ma jàll dem quoi man ñu ma yaakaar noonu bëree yaa ku dàq bëre maa ko dàq bëre fuuf ku dàq xeex fuuf maa daan incha dërëm lu dul ñëw fii xam nga dof dof lu rabe rabelu ñëw daanu incha allah kii kii euh, ki tëgg combat bi xale la yow nga nekk xale muy Baba Diaw jël xaalisam investir ko lan nga koy euh, lan ngay wax say supporters ak tamit ban message nga koy jox nekkul nekkul pour une première fois mu tëgg sa combat moom Baba Diaw. waaw Baba ñoo ngi koy ñaanal jàmm quoi Baba moom jig nañu donc xam ñoo ngi ñaanal jàmm di ñaanal bis bi na réussir si jàmm di ñaan yàlla na ma ji comme ni ma jigee woon parce que dëggal nañu moo njëkk a dëggal grand combat mu neex trop mu ñëw fii man leen làbbali te làbbali dama ko dellusiwaat Pape Ndoye bu nekkaat làbbali dama ko dóorum daanu làbbali ñëwaat na tey jii. da ngaa mën a làbbali ñàkk yam. làbbali Pape laa gëjoon tuus. Uh-huh. tuusu ma si Naar Sowaas tuusu ma si Ameth dama ko tuwaat si ñax jariñu. côté mobilisation bi foo toll. pare na naa gars bi ñu waaj. ñoo ñaan yàlla yal nañu yàlla suturaal. ok santal gërëm. Fatma Dia balaa ngaa sant balaa ngaa sant nga gërëm. gis yéen ñaar dafa am loolu a bokk. looy wax nga xam ne yéen ko xaw a bokk bëri ñëw rek xam di ñaanal booy yëpp xam nga xam la te da fii la yem quoi Sénégal ñax ma ne moom du ay noonu la ku baax la xam nga peut la ku ko xam xam ne nit la ñaanal jàmm nag da ñaanal suñu bopp jàmm waaw di ñaan dimanche yàlla bu dara teewul ñu ngi koy ñaan di ko daw di làq si yàlla yàlla may ndam